taala wa ñu ngi nuyu ñëpp ku ci nekk sa tur ak sant di leen siyaar di leen màggal di leen ndamoo di leen tiitaroo di leen bëggee di leen toocamikoo di leen diwoo di saafoo di leen raayoo leen naanoo leen galaxndikoo man seen xarit seen doomu ndey seen mbokk sénégalais patriote Mollah maa ngi bëggee ci nekk sa ak sa sant di leen ñaanal yàlla dafa leen jàmm Eh, sans bu ma tàmbalee sans Ilham Ilam, c'est un jeune Sénégalais qui vit au Canada euh, et qui vient de sortir son album euh, c'est quelqu'un boo xam ne xam nañ ko bu baax Canada quoi il fait des concerts yu mag a mag ci saal yu mag ci Canada day def ay tournées euh, Canada bi et tout vraiment. Euh, te il vient de Guédiawaye c'est un jeune de Guédiawaye donc euh, ma introduire sound bi euh, comme niñ koy waxee rek bon euh, yàlla dafa defoon ni ma nekkee jamono ju ma newoon Guédiawaye bon ñoom ils étaient trop jeunes donc euh, et il nous fréquentait dan na ñëw foofu xam nga bo nekkee ci ab koñ wala nga nekk ci barab boy souvent do ci bàyyi xel lu bari parce que ci ci jaboration yi ngay nekk la quoi donc il a grandi ci suñu kanam mais bon bàyyiwuma woon xel euh, ni amna ben jeune talent bu fa nekk donc euh, quand il préparait cet cet album mu woo ma ne ma grand ci seen pegg lañ màggee je suis de géejawaay ba nga nekkee géejawaay doon naa ñëw foofu bokkoon naa ci ñu la fan vraiment damay waajal album sama troisième album parce que génne naa ay album bon j'ai pensé que c'est un jeune nii rek quoi après quand il m'a envoyé ses albums il m'a envoyé ses concerts ses spectacles j'ai vu que c'est un talent quoi c'est quelqu'un qui est vraiment très respecté au Canada, Donc, il m'avait invité à venir l'aider dans son album. Donc, euh, pour première fois que je au Canada, c'était grâce à lui parce que euh, mon maman, n'est-ce pas? Bon, bon, le visage, quoi mais eh, yónnee na ma ay sanam et tout albumam yi spectacle non j'ai aimé j'ai pas hésité ma jënd sama billet direct ñew man maa jënd sama billet aller retour ñew Canada mu ñew jël si ma aéroport donc ñi dem ma nekk galem tok toog et tout donc c'est jangna aussi musique parce que jarna école des beaux arts Sénégal yeah donc jaar na école des beaux arts et guitare et puis il est extraordinaire ci guitare am na band tam orchestre la yor quoi ay ay donc euh, tombe moment bu muy au Canada mu waajal ben tournée donc après ñu avons ci tournée bobu c'était en 2018. Euh, septembre 2018. septembre octobre novembre donc on était ensemble ñu avons ci tournée au Canada. Euh, il m'a fait découvrir le Canada ce jeune talent ni euh, dem ci man sax maa ko doon maa doon MC bi maa doon maa ko doon présenté et tout ça quoi mais ay ay spectacle yu maga maga mag a mag Ilam il s'appelle Ilam Ilam boo leen tapé Ilam ci leen koy gis donc ñu ànd def ay tournées et tout ça après bon bu fekkoon daf ma décevoir damay jëlaat sama biir retour rek dem sama yoon quoi

ñu ànd def ay vraiment ay tournée yu yu nice et tout euh, ay Rimouski et tout ça dëkk yëpp quoi donc buñ ñu jógee ci loolu euh, bu ñu ñëwee euh, ñu dugg studio quoi donc sound bi ngeen dégg nii partie yim rap man maa ko bind man maa ko bind du début à la fin mais il a fait euh, featuring la de Meta Crazy Meta Crazy aux États-Unis nga Meta moom tamit lu il s'est déplacé aux États-Unis au Canada pour participer à l'album mais il ngeen dégg Meta participer à l'album album sénégalais ay la musique ay rap parce qu'il est respecté et même dans l'album de Ilam y a aussi ben son bu mu def même live and direct Baba déplacé où, euh, def live ben son ak mom mi ngi ci album bi album bu mujj bi ni mais li Ilam di ni justice bon quand il m'a dit que mais grand il faut que nga def bindal ma ben son justice vite fait dama ne ko jëlal guitare bi mu jël guitare bi tek ma commencé di bind texte bi muy job muy muy jouer day jouer rek may bind muy jouer may bind ba son bi jeex donc son bi ni ngeen di dégg moom sax def na lay wax nako aussi man mako ko bind justice ëpp la doole yóbbu la kaso mais taxi est-ce que newu fi ça? attends attends non taxi bi ñu fi Ça parle de justice. justice, justice, justice, justice. yeah <laughs> lyrics yi ngeen dégg nii man maa ko bind sama bopp la génne sama loxo bee ko bind. yeah respect à cër bi ma jox respecté ma xam ni bokk naa ci ñu dàq bind Sénégal kenn mënu ko dindi yàlla moo ko def. ñu mu naqaree nag ñu jéem xol ñu xaro wala ñu taalee seen taal taal safara tok ci wala xol mais ben affaire la bo xam yalla moko bind donc way lu muy rek lu muy bëri rapport il ilam ma choisi euh invité ma ma déplacer wu ñëw bindal ko taxi bi ni et tout jappalé ko ci album bi orienté ko musicalement et puis dem sama yoon expé l'expérience est là jeune talent bu yaakaar ni mën nañ la jàppale ci dara mën nañ la jàppale mais ku yaakaar ni yor nga xam-xam dajale nga lépp yaa ko yanu di dox ak moom ñu seetaan la rek quoi mais ñun xam nañ ni buñ toogee wéet ci suñu bopp rek ni yàlla may nañu ci côté bind ci côté bind laa wax ak ci côté dégg musique dégg musique la wax dégg musique yàlla may nañu ko loolu la may yàlla la ko donc voilà donc euh, album bi wuti leen ko sama gars yi Euh, a génne un album mais bon album bi fu nek ni mi ngi ci mi ngi ci support yëpp ah mën nga ko am ay ay ay ay Deezer ay euh, support ki rek quoi téléchargement yëpp mi ngi fa ay Spotify et tout ça bo demee rek bo tapé Ilam rek you know Spotify Spotify mi ngi nii defee you know Ilam mi ngi nii kii mooy Ilam mi ngi nii Ilam mi ngi nii ci album de Ilam you know Spotify ñu nii rek nga am album Ilam you know defee nii ci kaw y a tous les sons et tout tu vois album bi Néné la tudd Néné ngeen wuti ko Néné Ilam album bi di ngeen ci dégg bindu Mollah Morgun di ngeen ci dégg ay vibe yu mais mais rabuma ci woyuma ci nag bind inter kii rek laa ci goswide bindkat rek laa ci quoi bind rek laa ci def ak tamit joxe quelques mélodies donc Ilam moo taxoon ma njëkk a ñëw Canada hein. première fois bu ma ñëwee c'était pour lui c'était pour l'aider pour jàppale ko ci albumam et je l'ai fait alhamdulilah ce son là euh, mi ngi cartonné ci ci ci ci rajo yi nekk Canada mi ngi cartonné ci télé yi. di di béggee bu wax wax bu baax quoi euh, bon je pense que Sénégal nous ñu beaucoup duñ Sénégal aussi les artistes ne sont pas reconnaissants en fait tu fais des choses pour eux mais dañ koy pas. yo sax ne waxone ñom duñ ko wax mais yo sax boko waxone dañuy am dañuy am complexe bi quoi dañuy sont dafay mel da nga xamuñu un artiste art interprète aar am na kuy bind kuy interpret kuy woy koo xam ni moom duy bind lépp am na ci aar bi mais ñoom amuñu idéologie boobu fatala mos a dégg en tant que artist mu taxaw reconnaître ni n'est-ce pas euh, Maxi Crazy moo ko bindal fans yi mais affaire boobu dafa mel noonu ni benn crime ci sénégalais yi ci surtout ci art artistes yi et pourtant man bindal naa sound ñu bari fii Sénégal ah maam xaa bindal naa ko sound ci albumam mooy album boobu na nga doon dégg dóor waar moo waar mission bi dóor waar la question de jaar-jaar la am na benn son bu muy wax ci dee début à la fin texte boobu du à la fin maa ko bind jaam nga jaamul ma noo axuru zaman di mujjum jaamanoo bés bu nee ngay gis ku ñuy daangi daangi di yóbbu mu ngi ci album bi sound bu nice début ba fin man maa ko bind c'est-à-dire sujet verbe complement lépp mu ngi ci albumam nit waru mun a am complex taxaw ne man molaa moo ma bindal lii quoi parce que bu nga yaakaaree ni man am naa xam-xam bu ma la mun a dimbale dangaa déplacé wu ñëw sa kër ne ma grand jàppale ma bindal ma lii ma bind ko boo demee ci euh, dox daje squad mooy ex membre kër gi moo yoon newoon taaw seen sangan boobu góor a mën a caaxaan maa ko bind début ba fin góor a mën a caaxaan bab na jigéen mu jaaxaan mu jur doom mu bañ ko moom góor yi ñooy doomeraam man maa ko bind loolu moo ne woon góor mën a caaxaan na jigéen mu jaaxaan mu jur doom bañ ko moom góor yii ñooy doomeraam man maa ko bind mi ngi si seen album dox daje squad Mara ak mooy Solt ak Bafar Kase mooy Farba moo ne woon taawu kër gi saan boobu man maa ko bind ci seen album ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñi nga xam ne ñi ngi Sénégal man maa leen di bindal teg te yéen bu ma ko waxul tey doo mus a dégg benn artiste taxaw na Mollah moo ma bindal ak a bëri ay ay saan yi ngeen di dégg yu bind ak a bëri donc voilà loolu yëpp nag ci manque de reconnaissance la waaw loolu mooy manque de reconnaissance mooy moo tax aar bi boo ci nekkee da ngay dem ba nga xam ni Je ne je fais rien de bon pour les gens parce que les gens sont ingrats les artistes sont ingrats les artistes ne sont pas reconnaissants tu fais plein de choses pour eux mais après même le fait taxaw sax euh, nangul tu ci sax duñ sa yem dé dañuy parce que dégg ngeen fii kilifa qu'est-ce qu'il avait dit si benn interview Mollah moom Baye Fall la Mollah bindkat la bind na ba bind cinquième album kër gi day bind rek man de Mollah bu ma ko xamul sax dinaa ko fréquenté ndax xam bu ma ko xamuloon sax dinaa ko fréquenté ndax xam-xamam te bu muy wax yàllaa ko wax loo de Mollah fu mu nekk ci àdduna bu ma ko xamuloon dégg ko dinaa ko dem wëri fréquenté ko lii la wax ci ci carrément àdduna yëpp di dégg tey demal ngir dékkaat ko micro bu mu war a wax Mollah ci lim ko dimbali ci fi ko teg ci nu mu yeew sël nu mu ko sëlam sëlmoo sëlam ko ba mu yeewu ba mu xool ba mu xippi ba mu xam la réalité am lu bari lu mu def ci moom ci xam-xam tey demal nga laaj ko bu saagawul Mollah wala wax lu ñaaw de du <laughs> doo gis mu waxal ko lu rafet te taxaw na ne kii dafa bari xam-xam te ba ab taalibe la ñu laajtaat mu ne Mollah archiviste la lépp lu la réer ci xam-xam boo demee ci suuf defaale lal ba danga nga ko fay fekk ay livre la yore ay bouquin loolu caat moo ko wax archiviste la ça c'est clair moo laa lu la ci xam looy wër wala lu lëndëm ci sa xel boo demee ci moolaa mu xamal la ko wala mu leeralal la ko loolu caat moo ko wax demal nga laaj ko ko ne ko waa léegi caat moolaa moom archiviste boobu jafa jeex wala xel may naaw walla <laughs> danaa la non <laughs> Mollah guignol la quoi Mollah <laughs> Mollah <laughs> théâtre kat la quoi parce que xamul lan ma waral loolu lu ko waral moom mooy nit yi ci boppam bu nit dafa di yéeme buñ demee ba nga xam dañuy gis ñi leen di tàcc wala yuuxu rek dañuy rëy rëy koo xam ne ñoom pour ñoom ñoom ñoo détenir la centre ou bien la vérité absolue loolu mooy problème mu sénégalais dafa rëy te ku rëy doo jëriñu nit ki da oyof ku la xeeb ku la xool xeeb la waaye bu waxtu yi jotee nga yéem leen dem sa yoon loolu moo yéeme da gis boo nekkee ci kaaw bi ngay liggéey fen ki moom entreprise bi wala koo xam ne moom mooy PDG entreprise bi ñëw ci biir entreprise bi jaxasoo ak yow di la jàppale di liggéey comme yow te doo xam ni kii mooy PDG wu entreprise bi buy dugg ci day sol masque comme yow day sol casque dina sol casque yi lépp lu nga sol dina ko sol bu dee gant la dina sol gant comme yow dina comme yow lay mel amul kos amul cravate toog ak yow di liggéey ak yow li ngay liggéey mu lay jàppale ci loolu dem yoonam te doo ko xam heure bu jotee mu dem yoonam te doo ko xam wallahi da ngay laaj ñu ne la pourtant ki nga taxawaloon noonu di liggéey kooku mooy chef bi kooku mooy PDG bi mu ngi yor lu mel ni yor na ci quarante entreprise quarante wala cinquante entreprise mi ngi moom moo ko yor c'est un multimilliardaire ay bu doon sénégalais la bu doon sénégalais la tey jii buy ñëw ci entreprise non dañuy yëgal ni ñëpp chef bi tey lay ñëw tey la yàlla di ñëw tey la yenent yàlla ànd naa ak yenent bi tey la ñuy ñëw nekk doon leen ay jaam raam leen boo leen leen gisee mu kos karawat bi raam leen raam leen direeku leen waaw ngeen nangu leen lu mu leen wax rek tal talleeku leen ne basang mu jaar seen kaw nga xam ne bu ngay gis senegal nag chef bi di ñëw nga gis kos bi mu dóor karawaat bi bo xoju xoju tàngoor nu mu tàng tàng tàng kos karawaat lay dóor nu tàng-tàng nga gis DG bi dóor kos cravate xoju ñëw ku ànd ak suq yi ponkal yi ki nekk ñu gars yi wër ko muy def nii bu ñëwee <laughs> chef nga gis sénégalais wuy chef di lox wuy chef <laughs> ku nekk di jéem a def le maximum ci li nga mën pour rek ragal mu daq la wala mu toroxal la loolu ngay gis ci entreprise yi parce que amuñu modestie parce que dañuy rëy parce que dañoo ngand parce que dañoo foog ni ñoom DG bi voilà affaire yooyu non ay poste de responsabilité du ay poste du ay ngand ay de modestie la poste de liguey pour suqali la poste pour yar la poste pour yarou la poste pour xam sa bop la poste pour jam liguey don jam lool la mais xamuñu ko poste de ngand de funk funk ni je te le dis loolu dal na ma en du Sud may liggéey nii am benn waay bu ñëw jàppale ma affaire yooyu jàpp nekk ci biir di ma jàppale di ma kii di ma won affaire yi lonk ko fii defal nii defal nii nice ñuy waxtaan bu mu demee ba pare am ñu fa ñu fa jiitu benn Ivoirien moom moo wone ma ki nga doon liggéeyal ne kooku moom moom fii yëpp yëpp yëpp entreprise yi nga gis nii entreprise bo xam du taxaw 8 heures ci suba ba 8 heures ci goudi auto bu la indi moo lay indi wat ñeneen 8h ci commencé heures ci ba h ci suba 12h, 12h. 12h 12 heures usines yu dul jamais jamais jamais de la vie 12h, 12h. ne ma kii moom moom quoi ah, mais pourtant nous la doon wax mané ko non dañ doon waxtaan rek bi waxtaan affaire chemise bu simple la sol pantalon bu simple du cos cravate de chemise bu simple jean jean chemise jean bu muy ñew fofu dafa laaj sol gant sol na gant sol na mas sol na material mat matériel yépp yo xamni ne mënoo dugg fofu te do ko sol da kay sol andeng ak man di di mandi ak man di liggéey dal na ma madame madame Canada di liggéey ci benn entreprise boo xam ni de recyclage la quoi de recyclage ay tapis ay tapis nii muy daw xam nga ñu sotti ci affaire yi ñuy recycler ngay jël benn waay bu ñëw simple moom tam sol jean sol kii sol ay gants sol masque sol casque sol lépp taxaw ak man ci tapis bi di def nii di di di ko def nii di di dóoraan di dóor di dóor di liggéey di liggéey ndakate waa ji moom mooy chefu tricenterie boo gis buy dox Canada moom moo ko moom tricenterie mooy les centres de tri centre de tri bu tudd tricenterie foo ko gisee bind ko boo ko bindee mun naa ko bind fii won la nga bindee te waa ji moo ko moomaa du lu ant ay milliards lay génne par par semaine milliards par semaine laa la wax milliards waxuma caaxaan de tricenterie mi ngi nii tricentre yi xoolal tricentre yi lépp ay tricentre la moo ko moom tricentre yi ngay gis ni tricentre yi ay usine de centre de tri la ay centre de tri moo moom tricentre yi waa ji nekk ak man di liggéey di dóor di liggéey mais après man lañ ma xamal ni waa ji dafa ñëw foofu ki fa ñëw noonu nekk sama wet di liggéey moom moom Tricentri Canada buy dox fii bu tudd Tricentri boo xam ne bu am insigne bi loxo bi nii moom moo ko moom wanewul benn yoon ne moom moom moom wanewul dafa ñëw di liggéey comme ñun mus ngeen gis loolu senegal est-ce que mus ngeen gis loolu senegal parce que xamul tax parce que Sénégal boo jiitee rek buur nga buur nguur nga yor boo nekkee directeur Senelec buur nga boo nekkee directeur SONES buur nga boo nekkee directeur poste buur nga boo nekkee dir loo doon directeur googu buur nga fa te buur dafay am ay dag buur dafay am ay jaam buur dafay am ay mooy jaam yi mooy xaj yeeg yooyu donc buur bi munul am ñaari buur donc buur bi buy ñëw il faut ñëpp xam ni buur a ngi ñëw dag ya dag yi topp ci muy dem seeti jaam yi est-ce que li ma leen raconté lii mus ngeen gis Sénégal benn industrie benn usine un multimilliardaire bu ko moom ñëw nekk ak gars di liggéey di liggéey ñoom <laughs> jàppewu leen sax nit duñ leen sax jàppee nit duñ leen sax respecté dañ leen di jàppe ay mala ay xaj noonu ndax moo tax gi ngay gis naar yi ñoom ñoo moom jus yi ngay naan ñoom ñoo moom kireen bi ndox mi lépp la fa baax ñoom ñoo ko moom naar yi te non lañ jàppee nit yu ñuul yi naari libaane yi laa la wax jàpp nit yu ñuul def leen comme ay xaj exactement xamuñu luy leader sénégalais problème leader la am leader sénégalais buur la am xamul leader leader amul Sénégal moo tax Ousmane euh, Sonko sonn parce que xamuñu luy leader ñoom buur lañ xam président eh, kii maanaam jaamu leen ko bu kenn am ay idée di ko ko jox bu am ay kenn am point de vue devant lui kenn warul am idée kenn warul am ñoom dañ koy dañuy centre xam-xam bi ci waa ji c'est-à-dire pour ñoom kii président parti la rek Macky mooy président donc tous ceux qui ne sont avec le chef sont contre le chef képp ku nekk ak Macky Sall yow waaw Macky Sall nga war a doxe ak ay déetam amoo idée waroo joxe waroo xalaat yow daal comme xar wala bëy wala nag topp ci di dox noonu la parti yi mel moo tax képp kuy ñëw di indi le contraire ak ak ñeneen seen wax dañ koy dàq gis ngeen APR ña fa nekk di wax naan Macky Sall seen normal mun na am troisième mandat est-ce que dàq nañ ci kenn mos ñu ci dàq kenn wax sa xalaat amul si suñu parti yi amul liberté boobu noonu foofu lañu war a mën a xam ni sax déjà parti bu amul liberté

Souri Kaba moo fi ñëw ne Macky Sall amul droit troisième mandat ci lañ ko dàqee ci saase ci saase ci tàng-tàng ba Moustapha Diakhaté ñëw ne Macky Sall amul droit troisième mandat dañ ko dàq ci saase ci saase dañ ko dàq ci saase Moustapha dañ ko dàq ci saase mais mbay Ndiaye bu mu ko waxee est-ce que dàq nañ ko déedéet ma nga ba tey tey la level bi gën a yéeg Mbaye Ndiaye Khalifa Niass waxna ko fi Macky Sall amna na droit troisième mandat tous tay la tey la gën a baax la poste tay la gëna tay tey la gëna nek ci jamm donc lolu ñom ñi ngi def bato lu ñu ballon de sonde ñi ngi sanni bal bi di xol ballon de sonde di xol nan le peuple bi di fu ne Macky Sall amna droit def troisième mandat gaa ñu ne ah kon peuple bi garaaw du metti de parce que gis nga ballon de sonde yi ñi ngi sànni ci ndox mi di xool ba xam fan la niveau bi toll nga gis sénégalais yi duñ duñ ko metti lu metti lu bu sori waaye non waaye Macky Sall doful sax Macky Sall pare donc ballon de sonde yo ñuy teste, di yónni par benn par Ben, Mbaye Ndiaye demal wax ak gars yi mu ñëw waaye Macky Sall am na ci droit Khalifa Niass Ahmed Khalifa Niass ñëw Macky Sall am na ci droit troisième mandat gars yi waay yooyu nguruñtu

mais ni ni la Sénégal di doxé légui nak lool motax chaque jour sama waxta man le mal est profond sama gars yi ne pensez pas que affaire bi dafa yomb dé Sénégal feebar bu extraordinaire la yor feebar bo xamni ne tey jii bu ma ñàkkoon tuuti gëm yalla dama nan kenn mënu ko fajj amul garab c'est-à-dire on mourira comme ça Senghor Abdou Diouf Abdoulaye Wade Macky Sall toujours c'est la même chose et bu ma ragal bu ma amuloon lu ma lu ma dénk yàlla benn wàll goo xam ne dama koy bàyyee yàlla dama naan kenn mënul faj feebaru Sénégal amul garab le mal est hyper profond foo laal le mal est hyper prof le day metti le Sénégal day metti amul fu faut, fu fu nit meuna Bako. amul amul fu nit meuna bako ci système bi ni muy amul ce sera pas facile ñu le lu mel wallahi la azim ce serait guerre bu doy lay doon guerre bu doy wala Kagame Kagame il a tué des gens là-bas il a massacré des gens Kagame c'est un militaire il faut pas oublier gis nga dëkk yi nga xam sax xaw am révolution yooyu noonu ay militaire ay militaire lañ fa Kagame c'est un militaire Russie militaire lañ fa donc ay militaires yoo xam ni dañuy ñëw pour fas yéene xam nga militaire moom def deful dalay rey def deful dalay rey il n'hésite pas affaire bi nii la dañuy avancer boku ko mënul da lay faat me Burkina Faso militaire fa newoon Thomas Sankara n'est-ce pas Bo démé tey jii Rwanda Kagame militaire la militaires. donc bo fi ñëwé ci dëkk yi melni Vladimir Poutine militaire la woon donc c'est des militaires ils ont fait l'armée ils connaissent comment tuer un un mécréant ku yàq ku bëggul affaire bi avancé c'est un ennemi ñoom loolu lañ leen jàngal ku bëggul affaire bi dox tey militaire day ànd ak moromu militaire am nañ dem mu ne demul nañ dem mu ne demul mu xam mu ti karaj karaj na ko tuy ci bopp mu wàcc moom mu dem yoonam xam ni kii traître la boo defu ndànk mu rey ma donc un militaire boo xoolee dëkk yëpp muy euh, muy muy muy muy Russie ak Poutine boo demee tey. Euh, euh, ak Kagame bo demee tey jii Burkina Faso ak Thomas Sankara ñoo ñëpp jaar nañ ci l'armée ils ont fait l'armée c'est hyper intéressant exactement Nigeria aussi Buhari c'était un militaire loolu kese Yaya Jammeh sax gis nga nu mu leen nu mu nu mu def <laughs> dafa and ak ay conneries rek mais Yaya Jammeh gis nga nu def nu def Gambie gis nga sañ-sañ gum fa tegoon ku ray nit ma la motax ci nga gëjoon dégg ray nit

donc il faut formation bu am soit nga def formation militaire population bi wala yow président ba <coughs> doon militaire pour mu mun a yar askan wi parce que chaque jour ma <coughs> fàttali leen loolu Abdoulaye Wade bi mu demee bay pare pour defar dem di jëli ay fonds ak ay financement woo dem si yàlla si Abdoulatif Gueye Jamra ànd ak moom ci avion bi Abdoulatif Gueye bu mu ko laajee daf ne ko damay jëlee ay fonds pour tabax dëkk bi mu ne ko déedéet monsieur le président je pense que jarugul di jëli fonds pour tabax xam nga loo war a def mu ne ko waaw mu ne ko da nga war a dem tabax askan wi ba pare bañ tabax bañ defaru nga doog a tabax nga dem jëli pour tabax parce que amuñu disipline askan bu amul discipline askan bu ñu yarul ci discipline askan bu xamul lu moom askan boo xam ne moom pour moom lu moom moom mooy lu nekk këram lu moom mooy lu nekk biir néegam moom pour moom lool kese la moom mbedd bi buur la mbedd buur la tali bi tali buur la miiru mbedd miiru buur la cest à askan wi mënuñu gëm ni amuñu luñ gëm ni ñoom posé seen possession la lu dul seen lu nekk seen biir néeg loolu ñoom ñoo ko moom ak lu nekk seen biir kër te am na yoo xam ne lu nekk seen biir kër sax duñ ko nangoo moom mais xam nañ ko ko moom muy seen papa wala seen yaay donc duñ bëgg ko yàq sénégalais du sàmm lu dul lu nekk biir kër même bale bale boo ko buggee sàcc sénégalais mun na la rey balem balem laa la wax de teg balem sàcc bi tepp for balé bi bëgg daw ak moom nga sa sàccaay mun nga cee ray nit ndax bale sa bale la motax tax nga yewo di bale mais mbedd mi mom bu bour la kan moy bour yow xamago ba légui ni tabaxuñ la pour xamal la ba légui ni yow yaay bour yow tabaxuñ sa xel mi ba xamal la ni yow yaay mbedd mi yow ya mom mbedd mi tabaxaluñ la ba xamal la ni yow ya mom talibi ba xamal ni yow yaa moom feu yi feu yow yaa moom feu yi pot lampe yi sénégalais ngay gis mu def lasper def nii xool làmp pot lampe ne ko tap ko taj poto làmp lampe poto làmp laa la bu ñu la defal làmp da nga def nii visé visé ba mu ne ko tëpp lasper bi mu toj foofu la dem crise loo ci jublu fii dafa leer donc kooku noonu nga xam ne xamul moom exactement lu moom ak lu moomul kooku loo ko indil da koy yàq loo ko indil da koy yàq il faut mu xam déjà nga tabax ko mu xam moom mooy kan lan la moom lan la war a gën a sàmm lan la war a gën a fonk li nga xam ni buñ sàccee bale mu yuuxoo sàccee rayante ci ba dóor sàcce ba rey ko donc buñ sàccee pétrolam lu mu def ku takk sa tabaski ko sàcc ko nga gis sàcc bi yuuxoo sàccee ñu pétrole say contrats au pétrole say zircon say or mais yoro ba léegi sàcc baa dox ay soxlaam ba léegi sàcc bi newul ci danger donc sénégalais bi xamul moom la déjà ku xamul sa bopp munoo xam loo moom donc boo xamul loo moom doo ko mën a défendre donc da jàpp ni lépp lu nekk sa biir néeg ak sa biir kër rek nga moom loolu loolu rek la ñuy laal nga tëb bu weesoo loolu doo ci laal dara donc il faut balaa ngaa tabaxal Sénégal bi tabax Sénégal bi tabaxal Sénégal bi tabaxal Sénégal balaa tabax Sénégal tabax Sénégal bi. ba sénégalais bi xam kam xam ki mu doon xam limu mom am luñ nane patriotisme ci bopam mun def le don de soi patriotisme la connaissance de soi la connaissance de soi xam sa bop ci jaamu yalla la kam bu démé ba xam sa bop nak ah nga dem ci lan luñ nane don de soi nit mënul def don de soi sans am connaissance de soi bo démé ci pyramide de Maslow di nga ko foog fekk et connaissance de soi xam yaay kan donc il faut que sénégalais bi ci bopam ñu éduquer ko ci discipline ñu éduquer ko ci xam limu mom ak xam ki mu parce que dama kay wax ma li ñett moo am ci liggéey ñett moo ci am danga koy bëgg mën ko xam ko liggéey da nga koy bëgg mën ko xam ko boo ci manqué doo dem boo bëggee liggéey te mënoo ko te xamoo ko doo liggéey doo yàgg fenn merci l'estime de soi le don de soi c'est l'estime de soi xam sa bopp xam yow ki nga doon l'estime de soi mi pyramide de Maslow connaissance de soi donc te nous nous nu mu neex neex koy bëgg xam te te est-ce que duñ la dàq buñ la jëloon tey que nga chaque fajar dem di li ok li jël nañ la liggéey tu yow maçon nga tu ko dañ lay donc boo ko tamit xamee te bëggoo ko xam ko mun ko te bëggoo ko doo doo ci génn liggéey boo ko bëggee boo ko bëggul xam ko te mën ko doo ci génn liggéey boo ko xamee bëgg ko te mënoo ko xam nga ko mun nga ko expliquer lépp bëgg nga ko lool théoriquement mun nga ko xam nga ko mun nga ko expliquer bëgg nga ko mais munoo ko doo dem donc ñetti yi foog mu am xam bëgg mën ku ci nekk ci sénégalais dañ ko war a xamal boppam mu xam ki mu doon bu xamee rek day bëgg kenn mënul bëgg te xamoo moo tax ñu naan ay yàlla balaa nga ko balaa nga koo jaamu da nga koy xam parce que loo xamul munoo munoo ko jox cër loo xamul munoo contempler valeur am bu ñu la joxoon jamaate xamoo jamaa doo ko doo ko respecté doo ko jox cër da nga koy xam moo tax ñu ne yàlla balaa nga ko jaamu da nga koy xam donc danga nga koy xam bëgg ko mën ko nit ku ne da nga war xam sa bopp xam réew mi nga ne la nga ca doon loo ciy représenté bu boobaa lépp day yomb lepp day yomb lolou moy problème sénégalais moo quand on parle de patriotisme beaucoup de gens bu newoon ré ñan ñooy patriote ñu bari nañ taxaw man may patriote mais ak ñoo manqué valeur patriotique Il y a des valeurs patriotiques luy tax ñana naan nit ki patriote la c'est pas comme jóg rek patriote la sénégalais la non lolou du sa choix sénégalais nga du sa choix kii la jur sa papa ak sa yaay du sa yàlla la yow lan mooy sa choix lan nga def loolu foofu lañuy xool ban lan nga liggéey waxuñu la lu yàlla def lan nga liggéey loolu moom mooy c'est-à-dire juddu Sénégal du sa choix sénégalais la c'est malgré du yow ndax bu la yàlla laajoon won la senegal won la yenen dëkk yi nal alors ma wacce la fe wala fi nga ko dede yalla wacce ma fe bu la ko lajone bu lajone sa soxla wallahi lazim bu la yalla ku nek bala ngay juddu yalla leer ne li moy Europe de Amérique ngi ni Afrique ngi ni senegal ngi ni euh, fo ci beug billahi senegal du am 4 personnes 4 personnes duñ fa nek 4 personnes kuñ won fenen nga ne no fi la <laughs> wacce ma fi donc de ce choix le fenn ngay vanté wu de je suis sénégalais c' est malgré tu es sénégalais malgré de ce choix yàlla moo la judduloo foofu sama papa mooy mooy Mouhamadou Niass sama sama yaay sama yaay mooy mooy mais de ce choix tu n'as pas appelé laajoo yàlla mu judduloo la ci Mamadou Niass ak Awa Ndiaye déedéet kooku le choix de Dieu yàlla moo koy xool fu ko neex mu juddu loolu fa ci pauvre wala ci ku am wala ci ku nekk moyen donc loolu lépp léegi dafa ci dara yow amu ko dara loo def fu mu la judduloo sa baay ak sa yaay du sa choix choix wu yàlla la moo xool fu ko neex mu judduloo la fa te munoo ci tus xool kii judduloo ko ci am xool kii judduloo ko ci ñàkk xool kii judduloo ko ci famille boo xam pour ñu lekk sax lu ne la ñuy daj léegi kon yow dafa ci dara yow lañ leen laaj la lan nga def à part ba nga juddoo Sénégal ba sa papa nekké ki ak ki loolu yëpp choix wu yalla la ba nga nekk nit bu ñuul ba nga gatt wala ba nga ndjol wala ba nga xees amul lenn wala ba nga rafet comme ni ngeen koy waxee wala ba nga ñaaw wala ba nga <laughs> loolu amul ben lu mu nekk sa choix léegi yow lan nga def <laughs> lan mo la def patriote c'est parce que na juddoo Sénégal parce que yàlla la fi juddoo defoo dara de juddale parce que da nga màggee Sénégal non defoo dara <laughs> n'a pas de choix mais alors qu'est-ce que tu as construit en toi lan nga tabax ci sa bopp loo xam ne buñ taxawoon ne la yow yaa ko def nga ne waa man maa def sama bopp maa construit sama bopp lii man maa def sama bopp ma am jom man maa def sama bopp ma am ngor du ma trahir man maa def sama bopp ma dëggu même buñ may rey danaa ko wax man maa construire sama bopp valeur yi valeur nit moo koy def ci boppam valeur nit moo koy def ci boppam nit mooy am ngor nit mooy ñàkk ngor nit mooy dëggu nit mooy faux nit moo ànd ak pas-pas nit moo oyof ba nga xam gëmu dara donc valeur yooyu noonu ngay augmenter ci sa bopp travailler ko ci sa bopp mu nekk ci yow loolu mooy tax tey jii ñu mun la wax ne yow patriote nga donc nag maanaam y a des valeurs patriotiques luy def nit patriote du ay juddu du ci ay ñëw taxaw di wax rek moo tax man a la boo ne woon Sénégal patriote ñëpp yëkkati loxo bu ñu indeen valeur patriotique yi ñëpp wàcce kon benn benn ngay wàññi ci laaj leen kan moo ci kan la ci mbedd mi gënal këram kan la ci mbedd mi gënal këram kan la ci tali bi gënal buntu këram kan la ci tali bi gënal buntu këram kan la ci marché national bi gënal néegam marché bi ñëpp di daje marché national bi police bi gendarmerie bi édifice yi liñ moomal sa kan la ci mooy génn ci ci mbedd am lu nga gis lu ñëpp bokk lu la gënal yow la moom yow kese kan la ci ban sénégalais la wax leen ma benn ñu wooyee kooku patriote kan la kan la lu mbedd mi maanaam lu ñëpp bokk gënal la moom yow kese kan la moo tax patriote néew Sénégal ak dañ ko xamul sax xamuñu sax lan mooy patriotisme dañ koy fowee rek xamuñu lan mooy patriotisme loolu mooy problème bi bon voilà euh, sama gars je pense que je vais mu moo dalee mais du objectif bi euh, mais je ma doon bëgg wax rek force Covid 19 milliard. ay milliards a teg ci. loxo Mansour fay di gorom di goro suñu président Macky Sall euh, sénégalais yi jëriñoowuñ ci ñu ngi wax diaspora bi état d'urgence couvre-feu waaye am na ay profiteurs yoo xam ni seen lépp baax na ci defaru nañ am ci seen alal àdduna toog ñu pauvre nga gën a pauvre ñu ñàkk di gën a ñàkk ñu feebar di gën a feebar et cetera et cetera pandémie bi nag mi ngi progressé nit ku leeg màlle gaa yaa ngay dee rek léegi ñu yegg si fii ak semaine prochaine nga dégg yegg nañ cent di wéy mais milliards yi moom seey na voilà donc patriotes yi laay laaj couvre-feu bi gaa yi génnoon nañ fi Cap Skirring dégg ngeen ballu fetal tël ñu ñu tiire ko ab soxna deret ba tuuru ba léegi ma laaj leen yéen <laughs> fu mbir yooyu toll ana policier bu tiire woon ana gendarme bu tiire woon fetal fetal tël ci ci bët ab soxna ak keneen ci tànkam ana gendarme boobu noonu ma laaj leen ko yéen ba parler justice ma posé leen question fan ngeen toll ci gendarme bi nga xam ni manam gendarme yi nga xamni Cap Skirring population dañ doon génn di kaas ndox juste ndox buñ naan eau potable luñ naan luñ naan pour dund source de vie eau source de vie au moment où ci à côté gaay nga exploiter souf suuf di exploiter ndox mi exploiter zircon bi la Casamance fof la né maa laaj sénégalais yi millions ana gendarme yi tiré won ñene woon Cap Skirring ay balfetal na ngeen def ak ñoom pare ngeen seen dossier ñoom ñoom kumba amul ndey yi foo leen dugal seen dossier da ko xotti wala da ko taal wala dangeen ko dugal seen suufu casier yi wala seen mu ngi seen suufu rondal yi maa leen di laaj de sama gars alors maire bu ñu woon bal moom Cap moom dossier bi justice xanaa Sénégal amul justice moom Sénégal xanaa amul justice ab gendarme bu téye karaj karaj tiire moom mi ngi mi ngi mi ngi foofu ba léegi sénégalais defuñu benn tole buy tax ñu dàq ko wala ñu créer ko problème mujjul fenn ah. d'accord bon ana gone gu ndaw gi newoon Kaolack oto police bi ne ko tël mbëkk rël ba ñëpp yuuxu wuy sama ndey na wuy yaay yooyu ana gone ga bañ newoon ba mu newoon dans le coma hôpitalu Kaolack bi anamu ana policier bi ko bu jaar ci kawam fu mu mujj ana dossier boobu moom ana kook moom mi ngi ci commissariat ba léegi di dawal oto yi ana justice bi moom ana procureur wala procureur euh, amatul Sénégal Sénégal xanaa justice amatul procureur autosaisir moom moom boo ko déggee rek ab baadool la ñuy <laughs> autosaisir <laughs> baadool la daal la ñuy duuti duut faraj boo dawul duma daw daal Hmm? kon booy boobu daal na muñ xaar yàlla daal bu ko rayee ñu suuli ko fàtte bu ko rayee bu mu génnee fa lafañ wala mu génnee fa ndigg la yàqu mu muñ daal euh, kon dossier yi nga xam ne moo fi mujj nii nii nii yéen Sénégal kon am am na justice ni waaye Sénégal yàlla may na ko justice am na justice ah justice am na Sénégal quoi est-ce que nit bu gore war na toog Sénégal di wax waxu justice wax tudd tur ba wax justice justice moom yëgul ni Cap Skirring dañoo tiire ay fetal ay baadoo la ye xanaa yëgul ni moom Kaolack moom procureur xanaa yëgul ni Kaolack euh, poli bi di dawal hmm? Frank dawal mbëkk booy bañ naan dee naan deewul ñëpp dugal vidéo yi fu mu mujj du autosaisir naa ah? <laughs> moo tax ma ne Sénégal juddoo fa du du suñu choix de wallaay bu ñu yàlla ne balaa ñu doon judd yàlla yëndu ñu tuuti rek ñuy yëndu rek ñu xool senegal la rek xool rek li benn liir dootu juddoo ci Sénégal benn liir loolu yàlla day laajte di di da lay woon même bu dee cinq secondes la lay yënduloo rek yënduloo la France Amérique Australie Belgique rek nga ne nii rek xool Sénégal nan wuu bu bu bu bu ma laal bu ma jege kenn du fa juddooti senegal kon Sénégal dinañ wëri ay nit dinañ wëri ay nit yi ñëw dëkk foofu ana bi <laughs> yooyu dossier yooyu moom mu ngi ci placard procureur bi ah, sans suite <laughs> article quatre-vingt moom <laughs> moo dal ci ci Sénégal vrai film la article article quatre-vingt moom moo dal ci Karim ah. <laughs> Karim de fiirul kenn Karim dóorul kenn fetal ndeysaan moom article quatre-vingt moo tegul ci kaw Karima Karim moom mi ngi ci kaso bi quoi waaw El Capo El Capo El Capo police la yokk nañ ko yokkal nañ ko grade El Capo dafa dafa léegi dafa rey booy booy jakartamaan bi gars yi yokk ko grade dañ naan benn jakartamaan en moins benn buuju maan en moins loolu lañ leen di wax de rey leen leen de amuñ benn njëriñ te caayin rek ak lekk ceeb ku policier bu mun a rey reyal ñu yokkal la garaat ñii amuñu benn njëriñ dañ ñoo sonal ci net bi la ñuy wax di wax rek ñoom genre Mollah Morgun yi wax rek lañ ñun ñun dañoo bëgg a gouverner di lekk suñu xaalis mais xam nga lekk tamit am ab baadoola bu toog sa wet di wax rek wax ju bëri dafa metti rey di rey leen ñoom policier yi koo leen rey yokk garaat waaw sangare garaatam yokk ñoom ñëpp kay moom moom loolu mooy kii bi rayal ma yokkal la garaat la parce que tamit buur buy lekk wala muy sieste bu lekk ba biir bi fees un lion dormant di di ay baadoolo yu mel ni ñun nekk fii di wax rek di wax rek ñun ñi ñëpp wax rek kal ah, ah, net bi chaque jour ku nekk bind waaw Youssou Thiam bind ah, Aji Abdallah bind ñëpp bind live yi ko bëpp Mamadou Ndiaye wax ke euh, Mamadou Tall wax donc buur yi tamit bu ñu lekkee ba pare ba ba seen biir yi fees yi bëgg sieste bëgguñu ko leen di déranger moo tax Karim wax ñu ñu dóor ci kaso bi hmm? parce que buur yi bëgguñu ko leen di déranger bu ñu lekkee ba suur bay tëdd di noppaliku moo tax Assane Diouf wax ñu tëj ko ci kaso bi moo tax Yérim Seck wax ñu commencé di ko Yérim Seck wax ñu commencé di ko pamte pamte commissaire bi wax ñu commencé di ko pamte pamte loolu la rek loolu la <laughs> Eh, Sénégal senegal la neex de réew moom non man yaa ma yaakaar ni dafa am dafa am ku doon benn malaaka bu fekkoon yàlla di bind mu mu moom mu jël affaire yi naan day xaar moom tam day jéem a toppandoo quoi ba defar Sénégal man dama yaakaar loolu quoi yàlla di bind dëkk yi bind France bind Australie bind gi mu moom tam mu toog ba guddi mu ñëw naan xaaral ma taxaw benn ko may xool di ba defaral ñu Sénégal quoi parce que man man la waaw <laughs> ah, Mansour Faye moom milliards moom Mansour Faye milliards yi moom ah moom kañ lañ koy defal moom kañ lañ koy <laughs> kañ lañ koy audité Mansour war nañ ko audité de ay milliards ceeb boo xam ni <clears throat> démb ñëpp gis nañ ay ceeb yu jaune <laughs> ceeb yu rouge ceeb yu verte Diouf Sarr <laughs> yërim maa ko tuddee loolu yërim sexe yërim sexe gis ngeen <laughs> yërim feebaru sexe la yor nag yërim sexe maa ko tuddee woon noonu noonu yàgg na bu su wanee laay bi chaque jour may wax yërim du ma wax mukk yërim sekk yërim sexe laay wax gis ngeen <laughs> cey yàlla mu laa da day wax gaay gars yi dañoo gaaw fàtte littoral bi nag moom jeex na <laughs> ok ok c'est bon kon def na waaw Mansour Faye ah moom moom dañuy xëy na war na mun a dem ñu auditer ko sax ñoom juuf Sarr hmm? procédure attribution yu marché ni ñu ko defaree ay waaye jamono jooju ëpp doon wax <laughs> waaye France daal di xëddeen waaw Mansour Faye attribution marché yi nu mu ko defee c' est pas normal c' pas normal waaw gis nga marché bi waru ko jox naar bi non naar bi non naar bi du nit non non non c' est pas possible non naar képp képp ku yore Facebook wax nga képp képp kii commenté kii bind kii poste kii def vidéo ay ñun ñu ne fi ay waay ñun ñun wax rek lañ am ñun Sénégal làmmiñ rek lañ yor làmmiñ ko kii da koy wax live kee bind ko Facebook am kee commentaire ko <laughs> ñett yee fi am bu ma waxee bu ma ko live nga commenté ko ke ke ke posté wax rek Mansour Faye non marché yi nu ko defee nag non commerçant yi mënoon na ko jox commerçant yi non ceeb bi nag non dugub bi nag non non jumbo ji nag non machine yi fuus dem na waaw oh, jeex na jeex fàttali yi koy fàttali c'est fini c'est dañ waxaat leen <laughs> danga non sañu sañu discussion yi dañu daru dóor sa doom sax da nga koy dóor rus bu ñuy wax non da ngay ni tey la géej gi tey la géej gi di ngeer bu ñuy wax non mur de lamentation boo ñu fekkee ci <laughs> Facebook bi noo da nga naan laa tey Mansour fay tey oui waaye Mansour tey bu lii mënu cee génn sénégalais yi jóg nañ laa ilaaha illallaah <laughs> Mansour Faye tëdd fu mu tëdd ñii bu buñ dóoree seen ceeb ba teg am nur mooy fàtte ma <laughs> sama sama goro baa ngi ne la di <laughs> sama goro gaa ngi ne hmm? la <laughs> Aliou Sall wax nañ wax gars yi ne Aliou Sall bu ñu ko jàppee ba ko laay laay la Aliou Sall biir bi dina fàcc Aliou Sall sañ quatre cent mille Aliou Sall sañ quatre cent mille Aliou Sall yow mënoo ci génnee noonu di laay lay la laa Aliou Sall tey buñ la jàppee ba bàyyi la ñun saña lam yii alu sal di gëna dij di gëna reuy <laughs> rëy Aliou la ngay dox soxlam <laughs> Aliou Sall la ngay dox soxlam <laughs> jo jibul ba tàkkul suuf yënguwul Sénégalais non Sénégalais ak a neex bu waxee rek nga ne tey tey mu rey ko mais mais France daal di dali France rek ngay deg. Waw. waaw hmm? Alu sal mom ma ngay nalo ba yaanu Barki barki démb rek génn na fi nan. dafa choléra gi Sénégalais nan. ñaanal leen ko jam bu mu dee daf ñu war a jox suñu quatre <laughs> mais ñaanal leen ko jàmm waay kaa naa noot léegi mu dee non non bu mu dee bu dee <laughs> yàlla rey ko bu dee yéen la rek <laughs> a ñaan yàlla bàyyi leen ko bu leen ko jàmm comme ça bu deewul jox ñu quatre cent mille tooga barki Seydina di fàttaliku affaire Sénégal yaa ah, affaire ay dàq affaire ay reefoy jooy ñun pare guñ de barki Seydina ba ñun non kon Aliou Sall naay sax Mansour Faye nag waaye gars yi booy bu leen ma wax yooyu yeneen waaye ay soti feder ba dañ muñ rek <laughs> gars yi ñoo xam de ñi ñuy jiite ñoo ñoo xam ñi nga xam yi dañ buñ bu ñu xiifee tekk lañu def biir yi ñooy wax bu ñu xiifee biir yee jooy seen biir yi fu ñu toog biir yee di yuuxu duñu wax nag koo ci gis day mel ni ku mer daa añagul ñàng nag ñu naan la waaw yàq leen ceeb bi waay yàq leen añ bi waay waaye yéen mais yow añ bi dafa yéex quoi ñàngal nag di funki ay bu añee bu dóoree trente dank quarante dank ba biir bi fees cinquante dank soixante ba jëpp ba laal soixante dix quatre vingt ak sant dank yi no ba nan ndox bu sedd bi nak ba wacc dank bi ceeb bi commencé poser wacc grain yep dajalo wacc bu ki ba wacc bu biiru toll fi <laughs> bu toll fi bu fecci li ko ndox <laughs> taatu garab galay dem togi bankas to tok ci taatu garab e nu monsieur yow tok ci taatu garab bi nag e eh, won ma eh, ki e e ki gal ni e Fara ñewul Fara boy boy Fara ñewul e babakar ñewul way e e ret fa yalla e e ki yalla et pas pour Faty Boye ba kañ toog jotaay buñ toogee jotaay nag Xaadim Fay di dóor fee caayin ba nag Xaadim Fay moo leen di dóoral caayin ba fa la dabaay di commencé nag bu non ba Aliou Sall dundit Aliou Sall dëmb la non Aliou Sall sax sañ bi non suñ pétrole bi suñu gaz bi suñu zircon bi mais non c'est pas normal non ñu la ñu jox la léew lu nga woon booy booy nax na dam booy warga bi moom bi xamaa warga sadam la booy <laughs> lu furit bi gën a yokk waaye yokkal furit bi booy <laughs> fata pare na pare na ca bu demee ci Aliou Sall benn débat dina ci wax Aliou Sall wax ci Mansour Faye génnee Diouf Sarr jaar Cap Skirring ci waa ji tiire woon fetal ba te benn yëpp ay question la yu amul réponse nag après dali Kaolack fële ne ci waaja état d'urgence bi nag waaw mais couvre-feu bi nag non mais Macky Sall du nit mais yow ceeb bi nag non non non mais yow mais yow Yérim Seck moom dañ ko jàpp fee ndax euh, affaire kii waaye sëñ bi sëñ bi dégg naa sëñ bi daa gaañ oh yàlla ko yàlla yërëm te xaaree ko àjjana waaye porte parole Tidiane waaye yàlla ko yàlla yërëm waaye te xaaree ko àjjana mais yow yow yëg nga ni yëg dañ ko biiral fële benn débat boo xam ne entre level bi ak deuxième ak troisième bi cinquante sujets wala soixante dix sujets dinañ ko toj soixante dix sujets te benn amuñ ci benn réponse nag benn du ci am réponse ben du ci am réponse man bu ma sax duma ma ñibisé ñibbisil xeex bu xanaa sama yaay baaxul man buma ñibisé duma du li nga li ma def ni boko ko duma du dé bu dé yow rek kessa la duma ma duma du dé légui dina xol dinaa baax man est-ce que sax duma ma ñëw sax bu ma déggee puri puri dañuy dugg si suuf rondal gi laaj leen mbaa du mbaa du mbaa du lacrymogène mbaa lacrymogène bu ñu mom ma la man leen bu jeexee ngeen fekk ma maa ngi fii si suuf laal bi bu jeexee ngeen woo ma génn. man loolu laa dési de nga naan ñëwal xeex bu dee man la rek doo champ bi dina wéet léegi nag damaa commencé dama war a am la nag am la ci samay bopp nag bañ a sacrifier sama bopp noonu dee ni Mamadou Diop ngeen suul ma eggali seen ceeb ma a bëgg dund yéen yéen a nga am nga am bakkan ma am bakkan nga am ñaari pax ngay sàmm sa bos bëgg ma ma sacrifier bu bopp xam man baaxuma léegi comme yéen laay def comme yéen laay def karaj karaj mu naaw ci suuf rondal gi fuuj naaw waaw toog di leen xaar bu affaire yi jeexee ba sedd ma bopp laay génn du mu génn sax bopp laay génn waaye sama gars yi wuy ma xoolal ma fële mooy jeex na ñu waa jeex na jeex na depuis quatre heures foofu six heures ma génn ndànk dox samay soxla waaw ngeen am ay bakkan ma am bakkan yéen ngeen am gémmiñ ngeen di dugal seen i dànq cee bi ma ciy dugal dànq cee ngeen am ay bët yi ngeen di xoole ngeen yéen daal yéen yéen yéen ay sacrifice rek ngeen di wër quoi ay nit yi génn ñi leen di rey ko quoi <laughs> ñi leen di rek génn ñëwal <laughs> ñi ñi tëj ñi rey nii tëj ñi rey nii yow nga toog rek <laughs> ñëwal ñëwal xeex ko <laughs> ñëwal xeex ko <laughs> yow nag moom yow lu la wàcc lan moo la wàcc lu tax yow mënoo ko xeex walla lu ma war euh, daf laa wàcc yow non dafa doy waar dafa doy waar c'est catastrophique bon c'est dommage quoi mu dégg ne une partie de l'aide alimentaire gars yi lañ ko sàcc fu ñu dentoon ceeb yi <laughs> mooy ceeb yoo war a jox sénégalais yi nga koy denc ci ay sekook ay ay ay ngunu ginaar fu ne nga duggul ko fa hmm? finalement ñu ne lan <laughs> foofu boo demee ci champ bi dañ lay saraxe soit nga def comme waa Y'en mu am ay fonds ak ay financement yi tal nga xam ni boo dee sax gérer njaboot gi waaw ay fonds ak ay financement yu tal waaw ñoo lànk ak ay ay daas daasal sa carte ak ay sama carte sama arme yooyu yëpp ay millions ñu dox ak sa gox waxak wax ak sa député wax ak sa maire wax ak sa wax ak sa wax ak sa waa koñ ñuy am te millions yu bëri nga xam ne sa baay nga jox koy million sa yaay nga jox koy million nga jox millions yu bëri après nag nga doog a ñëw nag waaw ye buñ la jaree garaawul amul problème bàyyi nga fa bàyyi nga fa dara sax <laughs> boo ko defee yaay perte de ana Mamadou Diop ana njabootam a perte ku dee sax perte mais njabootam a perte <laughs> politiciens yi dafa am lu ñuy dàq ñu ne société civile bi sax nekk ci terrain bi sax dafa am lu ñuy dàq sama genre gi rek ñoo condé ñëw di con con ñëw gë waaye gëm Sénégal man dama gëm Sénégal ñu ne loolu tuy nga faatu dee na day wuy ne dafa ko ñu suul la ñetti fan la ñetti fan nga pare ca. way gaa yi waaye yow sa waay géréeloon nag ndeysaan géréeloon <laughs> ndeysaan jeex na fa lay mujj de yàlla ko yàlla yërëm waay kaay leen añ nga daw dóor tànk yi mag ji doo doo xaaral du añ ndax moom de waa ji dafa ma doon xeexal de non ma ma lànk du ma añ dinaa def grève de faim wala dara doo ko dégg de kaay añ buy bu lay xalaat yàlla ko yàlla yërëm ñu ne kaay añ laa la mu bàyyi lu mu doon wax dootu loolu ñaanal la billaay fa la bu dee yàlla ko yàlla ñu ne kaay leen añ yërëm bi sax du ko yeggale day daw dem toog ci dang ce boolu ceeb ba dóor ba biir bi fees naan ndox teg ci caayin waxaat la nan buñ la waxtaanee rek seen biir yee fees waa ji dëkk yi pare wuñu waay pare wuñu waay moo taxit justice bi di ñuy jaay doole instrumentalisation de la justice une justice boo xam ne indépendante librewul

wallahi watalahi ñi suñu njiit yi ay mala la ñu jàppee jàppewuñu sax nit jàppewuñu sax nit xooluñu ñu sax <laughs> Abdou Karim nekk ci kaso bi nga yóbbu ko pavillon spécial mooy ñi xam ne bu ñu feebaree ba sonn fa lañ leen di yóbbu nga yóbbu ko foofu génnaat encore ne wuy feebaru sax dara jot ko moom dañ ko fa yóbbu rek pour prévention pour mu xaw a toog foofu nopp dal tuuti quoi <laughs> après loolu mooy ngooñ mi ngooñ population mouton jox leen ngooñ ñu bu ñu yéeyee rek noppi <laughs> loolu mooy suñu ngooñ loolu seen seen seen euh, wax jooju ngooñ la quoi ngooñ pour dalal ñu quoi xam nga xar mom bu suuree rek mbëkk rek lay gis ak yoy dégg na ñu ne ah suñu xar yaangi ni dañu dañoo dañ nga yuuxu Abdou Karim Abdou Karim nañ wut ngoñ buñ leen jox way waaw duñ ko libérer dañ ko yobbu pavillon spécial rek mu tok fa <laughs> waaw dara jotu ko day dafa mi ngi ci lal hôpital yi teud mais dara jotu ko <laughs> jëlee ko ci kër jëré ko ci kër yobbu ko ci kaso génné ko ci kaso yobbu ko ci hôpital mu teud fa nga ne non dara jotu ko mi ngi ci hôpital bi teud mais dara jotu ko c'est bien <laughs> oui c'est bien monsieur euh monsieur le président c'est bien dara jotu ko kay dara jotu ko amul ben problème dara jotu ko xëy mu dee ngay xaar pour ñu mëna a xam ni dara jot na quoi xëy na ko ci ay kasso. yóbbu ko pavillon spécial Légui lan ngay xaar pour ñu xam ni eh, dara dara jot na pour mu dee quoi kon ku dee après la dara di jot d'accord mais mun nga ñu ko teg parce que ñun mom duñ population buy casse di population

Le <laughs> flagrant délit la Assane Diouf def flagrant délit du cour d'assises cour d'assises mu ngay jël dossier yóbbu ko instruction juge d'instruction mu éco premier cabinet wala deuxième cabinet wala troisième cabinet wala quatrième cabinet wala cinquième cabinet mu yor dossier bi nga jël waji ji ko ci kaso bi en attendant mu nek en instruction di jaar nga koy enquête di xol sinon bu loolu amul flagrant délit le flagrant délit c'est juste la semaine dans la semaine maximum Et la war a juger il moom deful crime jaayul drogue deful falsification de falsification de billets de banque donc fan nga ko war a flagrant délit foofu nga yóbbu ci une semaine nga juger Karim Khromkhak. flagrant délit peut-être que trois mois même chose <laughs> waxoo waxam <laughs> nga sànni ko quoi moom demul flagrant deli demul cour d'assises tëjoon nga ko fi un an et quelques mois dam mu tànkam double fracture yaa ngi répété waat même bi jàpp nga ko léegi mu def un mois bientôt yóbboo ko flagrant délit yóbbu ko cour d'assises lu tax parce que da nga am sa justice bopp parce que danga am justice boo moomal sa bopp justice boo xam ni indépendantul y a sa procureur yaakaar naa noqal ma ko foofu rek heure bu ma neex waaw heure bu ma rek mm, dinaa la woo pour nous juger ko donc Assane Diouf demul cour d'assises demul flagrant délit taxawagul ba léegi quoi te jaayul drogue du association de malfaiteurs deful cambriolage tiirewul ballu fetal deful faux billet de banque n'est-ce pas te ba léegi kenn jugé wu ko ay waay réew mi non réew mi vrai film la réew mi vrai vrai vrai vrai film non ku bëgg film dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg film bandi quoi film gangster film bandi demal seetaanal lii daw Sénégal quoi seetaanal rek lii daw Sénégal nga xam ne vrai film bandi moo fa nekk quoi rayul deful dara mais Assane Diouf ba léegi non mais vraiment <laughs> moo tax ndeysaan quand gis nga télé xam nga kañ laa koy gaaw fay bu ma toogee gis benn plateau gars non Sénégal dëkk démocratie la dama naan tej fay du du baat du teguwaat wala may seetaan benn plateau nii wuy xam nga Sénégal bu dëkk droit la dëkk droit la dëkk justice damay fay télé man télé Sénégal du ma toog Sénégal di seetaan télé du ma ko nangul kenn ñàkkuma fayda ba foofu di seetaan télé ay plateau toog naa ay Sénégal dëkk droit la dëkk démocratie fu mu ko déggee fay bés boo déggee débat boo xam ne am na ñu fa toog doon wax loolu pour ma laaj suite bi bu mu nee dëkk droit la rek wala dëkk démocratie la rek wala dëkk justice la rek damay fay télé bi dem sama yoon parce que mënoo maa nekk di fen fen fen fen fen di ma fooyee mënuma nangu loolu nag parce que loolu moom manque de respect la quoi parce que da jàppee ni yow yaa juddoo ci ci laytaay yow yaa juddoo ci hôpital man daal man man ci mbalit ma laa juddoo moo tax je prends même pas mon temps di déglu ay nit ay ponkalum jëmm yu mun a fen toog ci plateau ñëpp di leen sarañaa ay Sénégal dëkk démocratie la xam nga Sénégal boo seetloo dëkk démocratie la Sénégal dëkk liberté la Sénégal xam nga dëkk boo xam ne la euh, quand même quoi qu'on puisse dire euh, dëkk justice la man yooyu moo koy dégg damay fay sama télé te am leen fulla boobu sama gaay yi am leen fulla boobu il faut ngeen am fulla boobu ci seen bopp waaw voilà quoi bon je pense que ñi yemale ko fii rek wax rek lañ mundé wax rek lañ mun parce que xex mom ben nit du xex dañ ne loxo du taccu ben lam du kandang ay nit ñoo mëna xex mola moo xex mola mënul xex munul dañ koy ray rek <laughs> lool moy xaru da nga dofam da nga repam jinne la japp lool la wolof di wax da nga dofam da nga repam jinne la japp mola bu ñëwoon di xex moom kese daa dof rek wala mu repp walla jinne jàpp ko kese peuple mooy xeex benn loxo du tàccu benn lam du kàndang peuple mooy xeex boobu ku bugg bruit lii kese ana bruit bi ngelaw rek a fi am ngelaw kese lii mooy bruit gis nga baaraam yee booloo muy dix cinq kese mënul def bruit mënul tàccu dix booloo tak gis nga bruit bi tak tak dix yee booloo donc mbooloo mooy doole ku jóg naan day xeex moom kese daa dof daa rep walla day xaru kese mbooloo mooy doole peuple bi bés bu ñu décidé ñoom ñooy jóg xeex peuple bu décidé rek mooy wax naa ay ñëwal yow ñëwal xeex yow kay demal xeex yow xanaa bokkoo ci wala americain nga wala australien nga wala brésilien nga ñëwal xeex yow lan nga xanaa doo sénégalais xanaa amoo fa kër xanaa amoo fa papa ak yaay xanaa amoo fa rak kon man maa war a ñëw xeexal sa papa quoi xeexal sa yaay xeexal sa rakk xeexal say jarbaat man la quoi man maa ko war a def quoi pour yow yow nag lan moo la dal da nga feebar wala da nga dof wala c'est grave c'est catastrophique lu kémtaane la quoi waaye mi ngi noonu ñafar ci Mansour Faye ñafar ak ñoom Diouf saar ñoom Macky Sall ñoom day tooguñu fi ñi leen di saaga wala leen di leen wax wax ju ñaaw <laughs> ña fa far ñoom ay 4 x lañ yor ay Mercedes yor ay chauffeur yor ay apprenti <laughs> yor ay kër yi leen jox bon d'essence yi <laughs> leen fayal lépp ñi far ak <laughs> waaye ki far ak bi moom moo nekk fii nag jël portaabalam am bu moomal boppam taqale ko dem jënd ko ñëw indi di live jël temps bu moomal boppam ñëw di leen ko jox jël ay fëyam moomal boppam di ci bind jël bigam bu moomal boppam di ci bind di xalaat di bind di xalaat di bind pour ñoom ñooñu ñooñu ñooy génnaat saago ko moom <laughs> dégg ngeen wax ji de ki ànd ak Macky Sall ànd ak Mansour Fay ànd ak Diouf Sar moom mi ngi yore otom moom mi ngi lekk ba suur talu live di naan ba mandi nekk ci jàmmam waaw ñu jox ko chauffeur muy am lu mu néew néew néew benn un million benn neuf cent mille benn huit cent mille samay moromaa ah, samay moroom yor seen jabar ju tooy di joxe dépense bu mat ñi leen di toggal soos yu neex ay ginaar yu neex yu ñu roof kenn saagaw leen parce que demuñu ci live bi di wax <laughs> kenn sa te yàquñu bit yàquñu fëy jëluñu seen portable di live perte ñu fa seen temps ñoom ñu ngi dund seen àjjana moo laa nag mu nga jël temps di jël bigam di jël fëyam di xalaat di len dilen di len wax yu leer di len ki xif wara dem lek lekul wara nan nanul hein yorul auto buñ ko jox joon bo d'essence joxuñu ko dara mi ngi taxaw di wax ak ñom de ña ngay ñoo ñoo koy saaga nak <laughs> ñoo ñoo koy saaga <laughs> yo nopil yo bëy wax yo teet fixé yow duul waay est-ce que yéen leen ni man yàlla ñun ñi yàlla dañuy mbugal nii man comme sama saar gi est-ce que ñun ñun yàlla newul di ñu mbugal effort yi ngay def yëpp mi ngi mel nga ñëw équipe national ñu ne la ñu fay la nga ne déedéet bul ma fay ñu ne la ñu jëndal la billet avion nga ne déedéet bu leen ma jëndal billet avion ñu ne la ñu jox la ay crampon nga ne dina dinaa sama ay crampon ñu ne la ñu jox la ay kawas nga ne dina dinaa sama ay kawas nga def loolu lepp ñew di football di leen dugalal ay bii fo foo dugalee ñu way sa nangam tànday waaw way yow da nga sof waaw yow ba mbert waaw yow fessé fay ñu la ya dag sey biye ya jënd sey crampon ya jënd sey kawas ya football match ba yow lañ saga nday ñi nga xam ne nag ñoom buñ footballee ñu jox leen billet yow jox leen fay leen prime de match lépp ñu jox leen ko ñoom kenn saagoo leen ñoom ña nga ci jàmm di dox seen soxla <laughs> ñoom ñi ngi ci jàmm de man di gis ma benn waa APR bu toog di def live comme man nii <laughs> mbaa benn apériste waa APR yi amul kenn ku toog comme man nii jël sa temps sonu nak di bind di bind lepp live la lepp ay ay live lepp ngay gis ni ay live wallahi la azim live la lima wara wax dajale ay idée kon donc kuy dajale ay idée kay mi ngi xalat mi ngi xalat sax pour peuple mi ngi xalat pour peuple mi ngi xalat pour peuple wax ba ma wala ci lii mooy sama xaalis sama xalaat yi ma muy seen sénégalais lima mooy sama xaalis sama xalaat di may séddoog sénégalais lima ma maa ngi leen koy jox ngay gis ko lépp ndeysaan lépp lépp sax texte sama di bind rek di wax gisuma APR APR def de ci da ngay ba di ba yor ay otto, yor jawari yu yi yi leen di raay ak di leen ak di leen bës dégguñu duul dégguñu fessé xeyna na la rek <laughs> nañ muñ xeyna na nattu la xëy na yàlla xëy na mun ñëw rek mu teggil ma ko xaw ma ci gañe dé vraiment à part éveiller la conscience des sénégalais ak ñi nga xamni ne nañ stress sonn ñi ñëw sax Partage, ma emotional euh, intelligence emotional intelligence euh, émotionnelle au moins am na ñoo bu sama live ñi ngay ree di di ñi ngi live triste des fois ñi déglu samay live di jooy ñi déglu sama live mu leen di fàttali lu bari ñi sama live mu leen di mu di pousser live di bu lan la ma lan lii rek lii rek kon donc loolu lépp fayu yàlla rek laa ci mun a am munu ma ci am fayu nit boo xamalee nit ay wareefam nit boobu amul lu mu lay fay parce que man ñun ñi ngi xeexal ay pauvre lañuy xeexal pauvre yi mënuñu ñoo fay boo bëggee fayee ko kay da ngay xeexal ku am ku am boo boo ko xeexalee am jeune APR yi ñoom ñëpp dañoo am parce que dañuy xeexal ku am ku am kuy xeexal ku am ku am tibb ci lu mu am jox la waaye kuy xeexal pauvre ku lay fay foofu lañ koy tëjee question boobu kuy xeexal ku am ku ama lay fay waaye kuy xeexal pauvre ku lay ku lay fay tontu leen ma ñi xeexal Macky Sall Macky Sall leen di fay jeune apériste yi ñi ngi xeexal Macky Sall Macky Sall leen di fay ñi ngi ci jàmm ñi ngi leen di fay te dégguñu saaga dégguñu dara dégguñu xaste waaye kuy xeexal peuple bi moom mooy pauvre yi ku leen di fay yàlla kese leen di fay mais bu ñu wëlbati ko ñoom di la saaga moom léegi nag moom looy def yow imagine toi nga fekk benn borom doole bu jàpp kenn ku néew doole di ko duuri kur feñ nga puus ko jël xeex bi nekk ko di xeex ak moom tourné ki ñàkk doole gi di la këdd ki <laughs> nooy def boo jommiwul nooy def benn borom doole nga fekk Tyson di xeexal ak benn cikili di dóor ay kurfeñ king king ring amoo doole sax mais yow ñëw nga jàll seen diggante jël xeex bi di ko xeex amoo doole nag yow amoo doole de di xeex moom mu noppali ko tuuti sax nga ne di dóorante bum bum bum ni ngay dóor yow di xeex pare gis kooku nga doon xeexal di la ngànd nooy def yow bu la yoo la nooy def da fay taxaw wala da ngay add ab njool mi mbeur ngay def taw do ko fa do fa sax xit wa yow ka ngay xexal di la këdd di dor wa ngay xeexal <laughs> wa sama gay kon ñu def non ma rangé wat sama feuy ak sama xalaat gu bari yi yalla yalla na <laughs> yàlla na jëriñ doomu aadama yi waay bu dee lu baax la bu dee lu bon nag yàlla na leen ko yàlla dawale yàlla na leen sori bu dee lu baax la wax ji bu dee dafa am lu ci baax rek yàlla leen jëriñ maa leen koy ñaanal maa ngi dajalewaat sama fii tuuti quoi yàlla baax na na yàlla comme kuy def ndax yàlla xëy na yàlla dina soppi <laughs> <laughs> jaajëf waay kon noonu lay demee bëggee rek ñuy bëggee ñëpp waaye nag mais nag mais nag daal l' ensemble moom vraiment nice quoi maa ngi jot lépp vraiment euh, grâce au Facebook bi tax na ma am ay xarit yu bari bari bari malgré même c' des xarit yu virtuel mais am naa ay xarit yu sincère xarit yu bari bari bari ci ci sama live yi vraiment sama WhatsApp day fees del del del akay ay message plus de cinq cent messages billaay wallaay ay nit yëpp ñëpp di béggee ñii ne Italie ñii ne Amérique fu ne ci àdduna moo laa béggee moo laa kontaan nañ moo laa man sama yaram day daw sax barke alxuraan dama ma ne ci ay yàlla man gars yi teg nañ ma sas lépp message la loolu rek dafa neex sama live boo gisee da nga gis dix mille j'aime quatre nit ñooñu neexut quatre nit xam nga loolu tamit bu fekkee damay xool ci quatre yooyu noonu ak dix mille yi kii booba dama nekk di xool quatre yi pour décourager wu doo xanaa ma doon baadoo la moo tax mënumaa bàyyi xamul tax ña may bëggee ëpp nañ dix mille fois ña ña ña nanguwul ña nangu ëpp nañ dix mille fois ña nanguwul loolu moo tax may yokk rek moo tax live bi du ma bàyyi damay damay làbbali rek bés bu ma demee ba si sama live bi nag fekk ña ña compte ëpp ña nangu boobaa nag damay bàyyi waaw damay bàyyi mais fu ne ni moom mënuguma bàyyi parce que ndam li may am moom dafa rëy rëy rëy rëy xaaral ñu dem xaaral ñu dugg léegi euh, weddi gis bokk ci tak buñ defee nii bind Mollah Morgun ñu xool ñu xool ci benn rek tak waaw comme tey dem nañ ci biir live live bi moom mujjee def nii léegi live bi ñu xool ñaata ñoko aimé wa mi ngi ni 176 ans ñoko aimé 176 ñan ñoko ñan ñone ne 6 <laughs> personnes kon kay xam nga ni man 176 soixante yi laay jël 176 6 personnes ñone ne <laughs> kon kay gañe na bu doon élection da ma gagné par force bu doon élection la doon naa président suffrage universel bi manam gàddu naa ndam la di wey kon kay li li buma bayé nak damay trahir ñi damay trahir les cent soixante seize foo dem ci live nag foo dem am na yoo xam ne man sax defuma ko keneen kii ki kii site bi Black Intellect la Black Intellect xoola sama live bi la dugal ñaata j'aime la ñaata cent vingt deux ñaata ñoo ne déedéet trois <laughs> bu doon élection la gagné naa <laughs> te lii di sama yëpp te <laughs> site jàmbur la moo ko fa dugal fépp fu ñu dem maay gagné dëgg yàlla ji kenn mënu ko suul ker la kenn mënu ko suul hmm? damay gën a làbbali résultat yi kay moom damay dóor rek hmm? Hmm? fu fuñ dem nag xaaral ñu dem ci beneen léegi bii tamit bii keneen la xoolal léegi ñu xool ko gañe bi bii tamit ñu ni Mollah Morgun yaa naa maar a abusé du peuple léegi gars yi seetaan nañu xoolal ñaata ñoo ko aimé ak ñaata ñoo bañ cent quatre-vingt-huit ñoo aimé neuf cent quatre-vingt-huit dindi ci neuf cent quatre-vingt boo ci dindi boo ci dindi neuf ku gañe pour élection may gañe kon nag sama gars yi bàyyeeku ma de sama laay bi ndam yu ngi ci yàlla ngi ci jàpp bu baax a baax maa ngi gañe rek amul fenn boo dugg fu ñu dugg samay live kay sawaay bés bu ma demee nag ba nga xam ni ubbi naa laay fekk ña bañ ña ña nanguwul ëpp rek ma kii parce que loolu am na fii ñi ñaata lañ xaaral ma xool laa ilaaha illallaah xoolal bii bii quarante cinq mille personnes ñoo ko seetaan moom mu ko de yi du man de site jàmbur yi la man moom la ñuy gën a kar sama laay bi di ko jël xoolal site jàmbur yi li ñaata la six cent cinquante et un ñoo nangu quatre vingt quatre ñoo bañ six cent cinquante et un ci quatre vingt quatre naa ko de bu doon président tey doon naa <laughs> kon nag tant que mi ngi am rek bàyyi de <laughs> live itam noonu la mel bu ma gisee cinq mille commentaires quatre quatre personnes laa ci gis ñuy disrespect ñu ñu ñu saaga wala ñu wax est-ce que ñooñu war nañ tax ma bàyyi ndax quatre personnes yooyu kon ma nekk kon ma nekk jàmm kon ma trahir askan wi ak askan wi nu ñuy béggee ak nu ñuy suivre nu ñuy followee live yi ah nuñ koy dagg-daggee fu nekk nii Mollah Morgun moo fees dal ji xoolal xoolal YouTube bi xoolal YouTube bi xoolal YouTube bi ñëpp fu nekk nii ko ci bëgg sa live sa ñu suivre sa YouTube rek dangay dem jëli Mollah Morgun ñëpp ay Mollah Morgun la de ay jàmbur yi ma bu ma paree léegi-léegi gars yi dem dagg yóbbu Mollah gan rek siti jamburi yi la de wala site jàmbur la de day dem rek de siti jamburi yi la de les gens suivent bien Mollah gan partout donc pare guñ sama gaay hein inshallah allah lañ wax de bés bu ma démé nag ba gis ni ña contre ëpp ña nangum mom boba nag dana bayyi waaw boba la xamni fen mom moo mën ci kaw suuf boobaa laay nangu ni fen moo mun dëgg boobaa laay xam ni jaamu seytaane moo gën jaamu yàlla boobaa laa koy xam mais tant jamono ji moom ndam li moom yàlla yóbbu na ko jamono jii moom dëgg dëgg ji yóbbu na ko dëgg yàlla ji waaw fu ñu laal rek fépp fu ñu laal gaa yi daggate dugal tëb tëb tëb sit yëpp nag te ñëpp asaka lañ koy def duñ woo kenn di laajte gratuitement live gratitude gratuitement dañ ko duggal youtube nga télécharger ko gratuitement ma, fay deureum wutuñu ci fukki deureum wutuñu ko ci si yëpp di dag di duggal ku ne di duggal ma len di wax ne musuma ci wo kenn na la yow sama li nga duggal wut len jël len bo len def len ko sax ay site privé jël len man ma len ko may ci xol bu sedd guuy ku ci sama live yi ku ci mën jaay am ci deureum bo mën jox sa dépense njabot jëlal man ma la ko may ci xol bu sedd guuy topé wu mala dara fi ak yow mala xiyam site yu may gis yëpp ñi dagg sama kii di ko dugal damay dana damay cliquer pour am pour ñom ñu am ben vie bu jóge ci man barke alcorane sa xam ngeen lolu damay bind Mollah Morgun sama bo demee ci kaw xol tak fi bo gisé yi lan la mola morgan mo né ci kaw gis ngeen mola morgan si sama ki xol tak ma def ni tak mola Morgan bu ma gisee yeneen site dama len di may vie damay def ni tak ki kan la black intellect ma def black intellect gis nga dama ko doon seetaan pour may ko vue jóge ci Black Intellect seetaan tuuti demaat ci beneen site keneen sans limite TV ma bës seetaan ko pour may ko vue barke alxuraan billaahi wallaahi chaque jour ma dem ci site yëpp may leen vue man pour ñoom ñu am plus de vue pour mun a am buñ ya tuuti weccet tuuti weccet buñ buñ mun a fajee seen soxla <laughs> allah akbar macha allah dëgg rek am solo dëgg rek bu leen tiit bu leen ragal dox leen ci dëgg nekk leen ci dëgg sax leen ci dëgg ndax dëgg mooy mujj dox leen ci dëgg nekk leen ci dëgg sax leen ci dëgg ndax dëgg mooy mujj ñetti wax la nag dox leen ci dëgg nekk leen ci dëgg mooy ngeen di wax dëgg waaye sax leen ci dëgg ndax dana am seytaane dina ñëw pour indi dooleem ak leneen ak leneen waaye sax leen ci dëgg ndax dëgg mooy mujj sax mooy contre vents et marées nekkal ci li nga ne ndax dëgg mooy mujj ndax dëgg mooy mujj waaw kon nag di remercier ñëpp ah. waaw comme ni nga ko waxee si yi Black Intellect jàll jàllale njaay Nettali VAR TV Sénégal respect à vous gis nañ ngeen di partager vidéo yi xam nga parce qu'il y a la conscience derrière, il y a aussi l'éveil des consciences derrière. Donc, big up à tout. Sidi Yep, Black Intellect, Djalale, Ndiaye Nathalie, VAR TV, Sénégal, respect à vous. Avec boy, boy, boy, boy, boy comédien, Zal, Zal, le comédien, respect à toi, Zal. Hein? Respect à toi, merci beaucoup pour tout ce que vous faites. li ngeen di def pour jàllale xabaar yi pour jàllale message yi mi ngi amal njëriñ askan wi askan tamit aussi en retour maa ngi jot seeni i seen i seen i gis-gis ci affaire yi ñi ngi ñi ngi ñi ngi kontaan ci affaire yi donc sama gars yi live and direct for life yow di wax dëgg dañ dañuy rey kulul xaq walal kaanu murran waxal dëgg donte dañ lay rey peace and love